dañuy seeti Ablaye Wade nag Wara saar wax na Aïda Mbodj wax na ab lay Wade mooy wax ndax diggante Wara saar ak Aïda Mbodj kan moo ko ci gënal góor gi lan mooy position ci diggante boobu ñu seeti Ablaye Wade depuis Versailles ci li nga xam ne mooy ndëpp national bu PDS. wàccoog ak ñun bu diis ngi dem lu leen di nuyu cool bëri na te cool li ko waral mooy jàppal wadd bàyyil wadd jàppal Karim bàyyil Karim dàqal Farba bul dàq Farba maa ngi xool tey ci journal bi Maïssa Sall naan dàq buy am dañu war a dàq Aïda Mbodj mais Aïda Mbodj du ma ko dàq parce que lu tax du ma dàq Aïda mooy jigéen la bu mën góor Farba amul base politique ana base am ah amul base dëgg jotee dañ koy hmm? waa Pape Samba Mboup amul base ah ñooñu amuñu base politique dañ maa toppoon nii te yàlla tax waaye su ma leen teggee c'est parce que gis naa ne amuñu base Aïda Mbodj li mu wane ci parti démocratique sénégalais ku ko wane ñu bàyyi la ci parti Aida jàmbaar la Aida la ndax am na ñu ut façon bu ne pour jéem ko écarter du parti elle a résisté c'est une grande lionne man nag dëgg ma yàq c'est pas parce que demain ànd ak ñii bàyyi ñële waaye Aida nag ëpp naa génne ci parti bi ndax koo xam ne buy tàmmali wax Ablaye Wade bu demee ba ci digg bi tudd la buy tëj tudd Ablaye Wade moom bàyyiwul xam nga li bon mooy nga bàyyi parti bi pour ce beru ba pare Wade sax dootoo ko ñeme tudd parce que Ablaye Wade ginnaawam moo yaatu xoolal rek ana Thierno Lo dem na ana Mamadou Diagne Fada dem na ana Aliou Sow dem na ana euh, euh, kii sant Ndiaye la j'oublie son nom sax il était mon directeur de cabinet Souleymane Ndiaye Ndéla Ndiaye dem ak Lone Ndiaye la Lone Ndiaye l'homme de grand théâtre waaye kii nekk ci grand théâtre yeeg maxi football yi rek kii topp anniversaire rek te nekk sama nekkoon sama Serigne Mbacke grand théâtre Ndiaye moom dem na donc ñoo ñëpp dañoo beru dem mais Aïda li ko PDS mooy gëm-gëm gi mu am ci Ablaye Wade te bu ma sañoon tey Karim Wade sama doom la est-ce que yéen a ngi bàyyi xel Macky Sall gis ngeen doomam boobu di le jeune Amadou yéen a ngi koy xool day xëy rek taxaw laaj candidat bi maa leen wax ni Amadou euh, bu daan ñëw di ñaan si ndeweneel kër ga da daan toog naan ma maam ma ne ko naam mu ne man ñaanal ma ma doon président ma xam ne tel père tel fils Amadou Amadou toll woon ni cuquli la woon xale bu ndaw waaye palais de yàq Karim dugg na ci palais ba génn ni mu tolloon la toll sinjili kon bu fekkoon wan na rek ay tax war a wet lekk bu neex kon tey barigo laay doon waaye Amadou xam nga la la nekkee ci palais Amadou élève la woon de xam nga la la nekkoon ci palais la la nekkee palais bu xëyee topp euh, pizza yi hamburger yi yooyu rek lay dundee ay miswi yooyu neex yooyu hmm? moom sax sori na sax liggéeyu baayam waaye yu neex yooyu la Amadou bëgg. te xam naa ne buñ ko bàyyiwul xel day xëy rek nekk ne bàyyi ji boo demee may toog dama ko xam yàgg na maam dama bëgg nekk président wan sa wax ji lu ma ci dugal li ma taxoon jóg laa waroon wax li ma taxaw jóg mooy Aïda Mbodj mi na ngeen ko xool bëtu koo xam ne du mos a fekki Macky Sall ndax Macky fekk ko c'est trop man loolu laa gis le cas de Bamba Fall loolu mooy peeral peeral mooy wax ne Bamba day génn ba ñu signé ba juge bi ne Bamba ramassé say bagages Bamba takk ay bagages am ibbi garde pénitentiaire ibbi nañ ko bunt bi ba muy waajee teg tànkam ñu ne ko peeral ci biir tas yaakaaram maintenant le système de Médina est paralysé te le président Macky war na xool bu baax li ma ko doon jàngal ci politique y des gens yoo xam ne bu fekkee mbootaay dañu topp seen ginnaaw te il faut remarquer ne Bamba est suivi par des femmes xool bu baax li ma leen wax Bamba ak Khalifa Sall ay jigéen ñoo leen topp te la famille de Arame Diène c'est une grande famille politique qui a une ressource humaine boo xam ne fu ñu teg seen tànk dañ leen di fekki parce que politiquement ils sont représenté ñaareel bi ay lébu piir nañu ñetteel bi ci taraxi tijaan am nañ ci yax bu rëy te Bamba ay jigéen rek ñoo ko topp waaye jigéen bu la toppee day dalal xel xale bu la toppee mooy noflaay waaye ay balla puuna buñ la toppee xale yu góor yoo xam ne saay buñ la toppee c'est demande social bi yooyu amul solo léegi nag euh, sumaare kaay teel ma ni parti bi dama bëgg ñëpp ànd ak jàmm te ñu xam ne yéen ñëpp maa leen njaboote bi diggante Aïda ak Woré dafa war a jeex dama leen di jubale nag parce que samay jigéen nañu du ma wax loo xam ne dañuy xiiroo kii maa ko nommé présidente des femmes bu PDS di ware Aïda maa ko nommé mu nekk présidente bu groupement wu des députés bu PDS kon dañu war a juboo dooleel PDS waaw léegi xam nga nu ñuy def pour walla ne borom réew mi borom parti bi dafay xappi ñu dellu mboy mboy ca mboy ga eh, Didier Karine yokkal lay dolli ñoo sa wax ji dëppoon nag fi jéem góor gi wàccoon nga nit waaw góor gi yéex nañu ci waay waay waay góor gi dolli ñu waay waay naan mag la manul wax lu yàqu la mu ngi dem lu daw li manul sumaare sumaare sumaare ko diir mënu cee jot góor gi dolli ñu dañ ko daan di ngët naan góor gi nitu ay la alalaay bay ay ak a jëggalaat sumaare Guinée Bissau Madagascar ko sumaare Casamance aduna bi sumaare di seede laay ku di jàmmam UNESCO woolu ko mu ñëw sargal ko prix bu fet waa ji bi firndeel ko bët yées nañu cee jot. bët yées nañu cee jot. looy looy looy. bët yi dolli ñu. sumaare lii dafa métti. nit ñi tuuti yàkkamti. sumaare doo ko jëriñoo mukk. te tojuloo ko. chaque yaa ngi nii. moo jaar ci réew mi teg ci sa bët. weer bi gis bokk ca. bët yées nañu cee jot. sumaare. bët yées nañu cee jot. sumaare. bët yi dolli ñu. ca ba ngay ndaw xale boo ko bëggee di ko aar yaa ko jàngal ko la base de tout petit njëriñ yi ngi nii te lépp di day fexe suma rek yaa ngi may rek suma suma góor nañu ci jot suma góor nañu ci jot góor gi dolli ñu def ko ci éducation nationale lu kenn deful ñaare baa bi béy ko bi naw nañ ko plan jaxaay baa ngi gaayaa ngi nii te ci sañ ci nañu ey bu démb doon tey kon yéex nañu ca jot sumaare yéex nañu ca jot sumaare sumaare Sénégal moo raw ci réew yi Afrique yi demee fii fi ñu jëlee fi ñu jëlee sumaare Soumaré Soumaré Soumaré